بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون तिलंदे naaj bi macha allah su ko defee Alseyni Fall boolu teg leen boolu leen tàcc leen ma tuddee imam ratib moy sa bay li rek nga mëna indi ah li nak lañuy wax do ko bëre demal jàngi bëri sha allah yalla ko yalla def ba ok kat moo ñëw Mohamed Mohamed Rasoul Diagne Mohamed Mohamed am na ku am na benn faaleen bu fi jaay santam léegi trois mille yow da ngay jaay sa boss hmm? da ngay jaay sa boos ñaata 2000 eh yow yaa gën bu yombule Mohamed man saa nga ñuy tere. ah wëtti. kii Fall la sant bi ci ginnaaw kii di kii di rek naa ne Fall la sant suuratu tiidi waaw su ko defee maam Abdou lim ñu jàngal sànq dafa am lu am solo lu ci yàlla wax rek innama nutimukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala sukura motax ya def ta yalla tax yobul parce que boy def ta yalla tax woro xaar kula la wax jërëjëf so ci la waxul jërëjëf sax yalla mi tanke def dina la fay sha allah lol amna solo lol, aja mohammed rasul jaay suratu tiini nuyol da jangal ni suratu tiini yi ko solo muni ni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa suma radadnaahu asfala saafilin yàlla ni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ci deug deug bind nañu doomu adama ci anam bi gëna rafete mbindin yàlla mo nañu bind def ñu ay fas wala ñu def ñu ay bot wala ay xar waye gis nga duñu def jox ñu ay loxo ak ay tànk ñuy doog di wax li yàlla bind doomu aadama moo ci gën a rafet mbind. acca ku noonu nuyool ba pare nga doon jàngal xasat Chile Abdou Razak mooy Abdou Mohamed nag ah? foo dëkk yow Abdou foo dëkk yéen ñaa ñëpp Alabambara yéen a ko wax de man waxuma ko jëlal bi yi am na benn koñ boo xam ne nag seen tur moom kenn du ko wax ci daabay ji bi ay saa njëriñ day aja di leen ci leen waa àll bambara loolu nag su ma ko waxee junj doy na borom xel waaye oustaz xam na ko bu baax man mii tamit xam naa ko bu baax imaam tamit xam na ko yàlla na la yàlla xam bu baax alaaji yàlla nga delluwaat maa ko waay yàlla na yàlla taxawu la bu baax bi diis na waaye yàlla na ko yàlla gën a oyofal te teeñal la ko ci bi sallallahu alayhi wa sallam Aïcha ban saar nga ñuy jàngal waxal si rajo bi waaw waxal si rajo bi wala auzu birabbin naas ku si baabu nu tudd papa Galaye nu sant jaj jaj neex na jaaj neexul de xul kul wala waxe tay kul wala wa ban kul wala walaaw xul auzu birabbin naas aca nuyoo ba pare nga tari ñu xul auzu birabbin jaaj jaaj kii jaaj borom boulangerie bi jaaj ja dégg naa buy jënd mburu sayu mburu lay jënd si boulangerie mais mais kii dara xanaa jaaj dafa am ay ay gan foofu yoo xam ni moom gis ah jaaj est daara këram dégg naa maal bi duy mburu ba mu fees Vamos observar. ban saar ngay tari suuratul Ixlaas ayca nuyoo ba pare asalaamaaleykum wa mu dellu palaasam sa daax naa leen si Omar Ba ku ci toog Maguette na jege si Maguette jeg dama na ci yoon naa ko nag yaa sa papa ko raw <laughs> Omar yow yaa ñuy lanu wasam si acca nuyowal pare وما بعد صدق الله العظيم jëlal micro bi waaw ñuy wàññi coow li nag dégg xale yi koo xam ni tariwoo macha allah ak suñu mag euh, Serigne Gora Sall nga xam ni taxaw na fi ñaari taxawaay dëkk bi la bokk ci jumaa ji la bokk waaye nag euh, responsable politique la euh, mun nañu wax moom teewal fi représenté bi waa PDS yëpp Mohamed jumlah Pak Masya Allah. Bersantijan, ya. Jadi wa sinyu bopp di sinyu mak sinyu duai Muhammadinya juga kehal cintaannya ko Fi jutok ni Niang moom nag fii ñu toog nii li ñuy def moo ko ko magal di jitel ñu waaw bokkam ñu lépp yu jumaa ji lépp yu daara ji dara bugga ci bokk na ci ñi nga xam ni tamit jàppale nañu imam ci liggéey bi bu baax a baax ci bis vie lettre yi parce que nit ku ne daf koy nangul cërëm yàlla moo ko may ouverture boobu digganteem ak doomu aadama yi am na loo xam ne man su ma ko bëggoon def du ma ko mun waaw mais yàlla may na ko fu mu bëgg dugg ci doomu aadama yi mën na ko dugg di koy nuyu di ko ziar bu nekkatu leen Aliou Bamba waaw kon na yéen waaw ban saa ban tari. ajab li yoo leen jëm leen ñu dem toog seen place sadaqallaahu al-aziim Pape Fall ñoom ñaar Pape Fall mooy ñëw wala Mohamed Mohamed Dieng Pape Fall na waaj xoolal keneen mu ñëw bu Mohamed jëlal micro bi get ma sha Allah ah wax na lu am solo de alladi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in shahid kon kuy def rek defal loo xam yàlla moom moomu mooy buuru asamaan ak suuf te lépp lu nit def rek yàlla seedale ci loolu kon yow mi di di nit wala ngay toog di wala ngay def def ni bu la kenn gisul kenn benn mi ngi ci yow wallahu ala kulli shay'in shahid macha allah papa ak ah, yéen jëleen jëleen ma xool yéen waa Bandel ah ma xool ah. waaw Daaru Salaam Daaru Salaam yow nag yéen ñëpp Daaru Salaam waa Antura Antura Antura Daaru Salaam daanaka soo ko ban saa ngeen di suratul duha yow même saa aywa nuyoo leen ba pare assalaamu aleykum wa rahmatullaah 不知道。 ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلناه فيها أواتية دامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذب صدق الله العظيم. بارك الله فيك. Terima kasih. Roh soo rëdd paare bi ñu wàññi ñu wàññi wax wax bi tuuti kii jàng suy jàng su wax ji bëree rek mën na jaxase xelam dañuy wàññi coow li tuuti rek ah binta nuyoo wal nga jàngal ñu soo rëdd والليل حجاب بينهما خندق لا يلقيان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يبقى على الفتن ولا يؤذي جاره بالنفس الكبر تبارك الله Masya Allah yang yang def ko mag ak mboolem xale bu fi tari jàngal nañu suratul rahman ci jàngin bu tey ku dégg di mu jàng nga xam ni ah, li ko ustaas yi jàngal mokkal waaye li ci yéeme mooy li mu daanelee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni képp ko xam ni gëm gi yàlla gëm bis pénc bi bu lor sa dëkkandoo ah loolu nag war na nekk lu ñu bàyyi xel dëkkandoo ak borom dëkkandoo yaakaar naa bu ci lorante amee rek yàlla du mën a baale loolu tabaarakallah ñett ñoo ci toog Baye Niass ak Ousmane Diop ak Baye Ndiaye laa mu déglu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. nekk ak directeur bi ci teg ñun ñëpp ñu yóbbaale ko ñun ñëpp nañu yóbbaale xadis boobu. di yóbbal nga ñëw foofu.